ñëwaat ci suñu jotaayu koor bi ñi ciy waxtaane lenn lu aju ci àttey koor te yittal ab jullit kon ñu ngi jaajëfal ak sant mboolem ñi nga xam ne ñooy topp émission bi ci chaîne bi di Daara Koki TV di leen jaajëfal bu baax tey nag suñu jotaayu tey bi ñi fas yéene ñëw waxtaane beneen poñ bu aju ci ku feebar eh, naka lay def ak koor gi xam ngeen ne koor ak jaam yàlla gu màgg la ba waaye nag suñu boroom jox na ngànt eh, ñi nga xam ne dañoo nekk ci tukki wala dañoo nekk ci feebar ñi bañ a woor woor gi daleen leen di war waaye comme dañoo nekk ci situation boobu lislaam may na leen ñi ñàkk woor waaye koor googu dañ koy fay bu dee ki nga xam ne dafa feebar comme ni ko boroom bi waxee fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar boroom xam-xam yi sax ah, am na werante ndax ki nga xam ne dafa nekk dafa feebar dafa war woor wor moo gën ci moom wala dog moo gën ci moom am na ñu ne bu wooree kooka wor googa daganul ci moom waaye li wér daal mooy ne su wooree wér na waaye nag bu fekkente ne feebar boobu mën na koo indil ay jafeñ-jafeñ ci wéram ak wér gu kenn tegu ko mu woor na bàyyi koor ga ba li nga xamee ne Euh, mu ngi koy jàmbat bu taneeg jàmm mu dellu ci ak kooram continuer ko ba bu koor gi jàllee ci yeneeni fan mu fay bis yooyu nga xam ne dogoon na ci kooram te feer boobu moo ko waraloon ndax kat yàlla tegul nit ki lu mu mënul lu mu mënul lu mu àttanul laa yukallifu llahu nafsan illaa wasaaha yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al su suñu borom ak yomb la bëgg ci yéen waaye bëggul lu jafe te diine ji amul lenn loo xam ne ni eh, ak jafeñ-jafeñ la gu ñeel ab jullit wa ma jaala ba tax na saa boo xamee ne nit ki mu ngi ci koor feebar boobu dikkal ko mën naa bàyyi koor ga ba yàlla may ko wér mu continuer buñ génnee ci weer bi ak jàmmu mu fas yéenee fay koor yooyu bu dee benn fan la dogoon mu fay benn fan bu dee ñaari fan la dogoon mu fay ñaari fan bu dee leneen tamit mu fay bis yooyu comme kem li mu dogoon waaye bu fekkente ne feebar boobu dana ko indil ay jafe-jafe kooka daganul ci moom mu woor ko ndax liñ leen waxoon kon daal ki nga xam ne am na jafe-jafe ci wér-gi-yaramam kooka lislaam tegu ko muy Euh, sonn ci koor gi na daga tegandi koor gi ba yàlla may ko wér ak jàmm mu continuer weeram bu weer wi jeexee ak jàmm incha allah mu fay bis yooyu nga xam ne ci la dogoon waaye dafa am keneen koo xam ne nii euh, moom mënul woor mënu koo fay tamit muy ki nga xam ne dafa feebar feebar boo xam ne ni yaakaaruñ ak wér ca loola wala ku mage lool ci ay at moo xam góor la moo xam jigéen la kooka nag teggil nañ ko koor gi waaye du ko fay waaye nan lay def eh, ndax suñu boroom subhaanahu wa mu ngi wax ne wa ala alladina yutiquunahu fidyatu taami masakin ibnu abbas abdullah ibnu abbas di boroom xam-xam bu mag boobu ci saxaaba yi yonent bi seedaleen ko ne moom mooy xabru hadihil umma mooy fóorey xeet wii nii te ñaanoon suñu boroom mu déggloo ko alquran ak xam-xamu firi alquran nee na loolu suñu boroom kim ci namm mooy as cheikhul kabir góor gi nga xam ne dafa mage lool wal maratul kabira ak jigéen gi nga xam ne dafa mage lool ci ay at ñooñu bu ñu mënta woor ni ñuy def mooy dañuy leel bépp bis boo xam ne nii wooruñ ko ñu leel ab miskin xadis boobu imam Buxaari moo ko nettali kon kooku nga xam ne àgg na ci ay at nga xam ne bu wooroon mën na koo indil ay jafe-jafe teggil nañ ko koor gi waaye day leel miskin ngoon gu jot ci bis bu nekk bis bu mu waroon a woor wooru ko day leel miskin su ko neexee mu ko def mu def ko bis bu set maanaam ginnaaw bu mu wooree ba pare mu leel miskin walla mu bàyyi ba weer wi jeex mu xool mu xayma fan yi nga xam ne waroon na koo woor mu dajale ko bu ko neexee mu togg aw ñam wu toll noonu woo ñi ko soxlawoo muy muxtaaj yi ma masaakin nii wala mu jox ko benn benn par benn waaye daal li daganul moom mooy mu jiital joxe ga daganul ci moom mu joxe ko lu jiitu muy woor waaye mën naa def saa bu wooree saa bu ñu kiyee ba ngoon bis boobu jàll te waroon na ko woor wooru ko mu leel ab miskin li muy leel am miskin nag saax la mën naa toll ci euh, mën nañ koo xayma ci liibar ci li nga xam ne moom lañuy dundee ci li ëpp moo xam ceeb la wala leneen la wala makaruna wala leneen bu ko neexee tamit mu joxe ko xaalis am na ñu koy def téeméer am na am na ñu koy def ñaar téeméer euh, nit ki lim am rek waaye ki nga xam ne daa amee feebar te feebar boobu yaakaaruñ mu jug ci kooka woor gi teggil nañ ko ko waaye du ko mën a fay day atte mooy atte góor googu wala uh, soxna soosu nga xam ne mënuñoo woor ndax ay at dañuy leel miskin ki nga xam ne nag uh, feebaru naax yaakaar naa junjoon nañ ko ci yenn jataay yi ñu weesu ki nga xam ne dafa am feebaru naax kooku moom koor gi tegg tegg na ko kooku laa sawma alayhi kooku warul woor war waru ko nekki naan ki nga xam ne xel mi day jaxasoo kooku tamit àtteb ki nga xam ne dafa naax la waaye am na kii koo xam ne nii dafa yéene woon woor ba xëdd xëdd ba pare ba tàmbale ko ba fas ba fas ak kooram waaye nelaw jàpp ko mu nelaw cig bi yépp nga xam ne yeewul lu dul ginnaaw ba jant bi sowee kooko kooram googu wér na te suñ borom incha allah dana ko nangu moo xam bëccëg yëpp la nelaw wala lenn ca bëccëg la ca ëpp kooko kooram googu suñu boroom nangu na ko eh, ci tënk daal lu gàtt mooy ne képp koo xam ne nii amee na feebar te feebar boobu bis bu wooree mën na koo indil ay jafeñ-jafeñ ci wàllu wér gu kenn tegu ko mu woor am na boroom xam-xam yu wax yoo xam ne sax kooka woor dafa araam ci moom ndax suñu boroom tegewul lees mënul laa yukallifu llahu nafsan illa wasaaha lislaam lépp lu yomb la te wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa ci xadis bi wër ne mu ne mësuñ koo tànnloo ñaari mbir lu dul dafa tànn la ci gën a yomb kon nag lii lañu amoon tey pour waxtaane ko ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi ci Daara Koki TV di leen jëfal di leen gërëm incha allah ba beneen yoon ci beneen jataay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la chaîne au service di Saint Coran